بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بحق ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا mbokki انترنتي yi nu fas yéene le nu fas yéene partage وحمنا داي رحس خل داي تحجب داي دفنا خل بو جاگه رك لب جاگنا فتبارك لا نحنكو حديث وحي إن في الجسد مرقطة إسا صلاح صلاح الجسد كله وإسا فسد فسد الجسد كله الله وحي القلب ممن لك خل بو تلم داناي وارا لو بري بري داناي وارا لغنا نور سي بكر داناي وارا لفتبارك الله بي نور سكنان سي ci ak lépp loo xam ne bii lu yàlla gërëmul la naafila bi nag kuy faral di koy def rek day fóot xol naafila bi ñaari rakk la ñaari rakk yi rakk bu si nekk danga si jàng fukk ak juróom-ñeenti fatihatul kitab fatiha ngay jàng ba mu jeex si rakk bu nekk fukki yoon ak juróom-ñeent soo sëlmalee nga jàngat fatiha 132 muy téeméer ak fanweer ak ñaar 132 mooy tolloog xalbu fa tabarakalaa naafila la boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngay gën a jege borom bi bëgg nga yàlla di gën a raxas sa xol di lay gën a jubal si imaan ak ihsaan soo ko de def tabarakalaa seytaane dina lay sori te dana fóot xol ba nga nekk tànneef kon naafila bi la leen indil tey xam naa yeneen beneen yoon dina leen indil yeneen i nawaafil wasalaamaaleykum wa rahmatulah